ba yombal ñu ko ñu ñu nekk fii ak ñu nekk bitim réew di sant it suñu borom ba nga xamee ni may na nañu ñu fekkee bis bi bisu wat bi nga xam ni ku nekk ci senegal jàpp na ni lu am solo la ci lii ñu nekk mais aussi ci ëllëgu réew di woon ak Sénégal yëpp ak sénégalais yëpp ku nekk fa nga mën ni ne nga ñëw def acte bi ndaxte acte li nga xam ni Euh, benn yoon lay am ci juróomi at donc baax na ku nekk jóg ñëw def ko di gërëm it sénégalais ak sénégalaises yoo xam ni ci tournée bii ñu jóge suivre ngeen ko couvrir ngeen ko ñoom ñëpp fépp fu ñu dem teeru nañu teeru bu rafet teeru bu set teeru bu ànd ak yaakaar teeru bu ànd ak gëm-gëm ak gëm li nga xam ni moom la ñu ñëwoon présenté leen ko muy le Sénégal bon à vivre et nga xam ni ci programme boobu lépp lu jëm ci mbay mi jëm ci eh, dund gu cher gi jëm également ci wér-gu-yaram jëm ci jàngale bi jëm it ci lépp luy suuxat développement lu mel ne industrialisation mën a indi it xëy ci ndaw yi mën a indi autonomisation ci femmes yi ak yeneen ak yeneen pàcc yi nga xam ni ñoo ngi ci biir yëpp ñu présenté leen ko ñu comprendre ko mais surtout xamal leen ni ñun nitu kàddu la mooy lépp lu ñu bind wax ko digle ko diggante ko ak euh, askan bi yàlla defee ñu fal ñu lu ñuy respecté parce que li ñu gëm mooy Sénégal yàlla may nañu xarañ xam-xam nit yi nga xam ni dañ leen mobiliser avec une équipe compétente mobiliser leen avec un président bi nga xam ni day fàtte boppam di fàttaliku rek askan bi mën nañu am développement bi war ci biir réew mi mais mën nañu mën nañu également positionner Sénégal ci biir Afrique positionner ko ci biir adduna te bu yàlla defee fi leen ngoon Sénégal yi falu ci loolu laay jublu dès la première seconde te ci loolu laay nekk ba ci dernière seconde ci mandat nga xam ni bu leen neexee tey ñu dénk ñu ko di wax daa diaspora doon sago fekkoon li ñu njëkkoon wax la ci loi électorale bi ñaar fukki fan du woon ñàkk ñu ñëwoon ci seen rek comme ni ko defee ci biir réew mi mën leen présenté li nga xam ne mooy programme bi leer na ma ni ak déplacement yi ñu njëkkoon def ak campagne bi ni ñu ko suivre comprendre nañu am ci bëgg wax te xam nañu ni fàttewuñ leen ah, bu ñu yàlla joxee ndam ci biir liggéey ci la bokk te fu ñu mën a ne impact bi dina leen fekk te daanu organiser seen retour pour mu mën a lancer.